asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ku si ne si santam waaw sant yàlla sant julli si yonent bi sant Serigne Touba Serigne Touba Mbacke Serigne Mountakha Bassirou ak sëñ Mbaye mu yóbbaale bépp tarixa bi fi nekk di nuyu famille El Hadji Meysa Seck sunu taaw Bamba Seck di ko nuyu ak njabootu El Hadji Meysa Seck yëpp. di nuyu ak kuy safa ala Abdou Karim waaw xam social moom yàlla dafa def ni dañ ko doon parce que bu ne kuy sa waajur ñu ne El Hadji Meissa Seck yàlla def mu doon dox si social dimbali doomu aadama yi kon tamit bu demee ba wax mouvement dekkal cosaan bu demee tey ji ba taxawal ko mooy fu sunu waajur tegoon tànkam rek fa lañ bëgg a teg suñu tànk fas yéene ànd ak nit ñi dimbali la nag sa yàlla tax waaw mouvement bi moom am na ko parce que mouvement bi boo gisee dañ ci waxtaan ak kilifa diine yi ñu jox nu ci ndigal ñu ànd seeg ay gor ànd seeg ñoom tamit suñuy xaritu suñuy doomu waajur lañu ak tamit suñuy xarit seet ñi nga xam te ne tey jii ay gor lañu sa tamit mën nañoo na nañoo gën a jàppale yàlla def tamit mouvement bi tamit taxaw pour social dimbali doomu aadama yi def lu baax daal waaw mu xam moom social moom boo ko yàggee def rek day dem ba dugal si politique ñun nag politique bi ñuy def moom politique de développement la mooy ñu fa yéene ànd si dëgg jàppalante jéem a taxaw suñu gox taxaw suñu dëkk loolu daal moom moo moom moo waral mouvement bi tamit euh, aussi tamit euh, ñu ngi waaj a def suñu lancement ci mois de mars bi lañ ko jàppoon waaye xam naa dañuy bàyyi ba après koor gi rek ñu fas yéene ko lancé. non lii moom politique euh, de développement xam nga politique dafa yaa yaatu lépp politique la tey dafa am dëkk bi ñoo xam te ni tey jii beneen génération bu bees bu war a jóg parce que Thiès dafa am loo xamante ni tamit. waa Thiès foog nu xam ko parce que dafa am baat yu may metti des fois dañ naan kii nitu Thiès la yaakaar naa ni nit ñi xamul lan mooy nitu Thiès nitu Thiès mooy koo xamante ni bu jàppee du bàyyi kenn du leen ger ku nu gëmul tamit du nu ànd ak yow ku nu gëmul tamit du nu la wooteel moo tax tamit ku ànd ak ñoom loolu non c'est-à-dire que nii politique léegi dafa yàqu parce que mag ñi bu njëkk ba dañ naan. ànd di tuddante doom doon ay xarit ànd ba bàyyi léegi nag dangay saaga baa ngay xaste nu jël la nome la waaye man Thiès gi ma xam Thiès tey jii xoolal tey jii def nañ fi lu ne financé nañ fi lu ne ñi fi nekk amul tara lu nu apporter le président de la république parce que Thiès boo ko maîtriser wul doo ko doo fi mën a gañe loolu moom dama ko xam parce que xale yi foog nga xam leen xam seen bëgg-bëgg ba pare di toog di waxtaan ak ñoom parce que ñoom dañoo bëgg ku leen yëg boo yoree oto tent wut say garde corps gars yi yëg si wun si li nga bëgg doo ko am moo tax Thiès tamit ku leen di bàqoo feneen bi da ngaa xamul Thiès rek non xam nga politiciens yi ñoom utiliser wu na ci jeunes yi xam nga jeunes yi tey jii boo gisee ñoom moom ñu ngi bay seen waar parce que sànq rek am na ku ko waxoon mu ne Thiès boo gisee. ñetti métier moo fi am dawal jakarta jaay café Touba raxas oto tey dëgg-dëgg mooy ñi waroon taxawu cees danoo croiser la set bras danoo croiser bras tey seen loxo banque seen loxo cees dafa am genre yoo xam tey jii bu leen mayoon sens war na noo mën a yóbbu faneen Thiès parce que Thiès compliqué wul jeunes yi méttiwul mooy lan la waxtaan ak ñoom nga bokk ak ñoom mili di naanoog ataay di añanoog ñoom di di fubalanoog ñoom lépp loo bëgg mun nga ko am waaye ñoom amuñu ko tey si politiciens yi tey jii koo dem seeti mu tëj ay buntam nga bëgg élection ñëw nga bëgg a gañe loolu mënta ne xam nga mouvement bi yàlla dafa def ni ban ko créer yàgg na daan nañ si dox nag waaye taxawul wuñ ko woon parce ñun ci politique lañ judd tey ñun suñu waajur boo xoolee moom moo njëkk a nekk premier adjoint Léopold Sédar Senghor Ousmane Ngom ba ci Pape Ali Ndaw ba nu muy génnee àdduna ñoom ñoo mës a gañe Thiès ñoom bu élection bu mësaan jot dañ daan joxe ndigal rek gañe kon tamit buñ fi bayee seen waar àndoon ànd gu rafet yàlla def tamit ñun ñu xool loolu xam ne politique bi yàqu na ñu bëgg a delloo si waat cosaan mooy ay nitu valeur ni ñoom te duñu saaga duñu xaste ba pare di teg ay projet di dimbalante tey jii ku jël tey jii say moyens tey di ko dimbali tey jii buñ la falee di nga mën a dimbali doomu aadama yi waaw loolu moom sama yéene la man dama ko bëgg parce que yaakaar naa ni Thiès benn njukkal rek laa leen deseel mooy jël maire yi parce que dafa am yéene gu ma fi am parce que da ngay xool ki bu jotee edd yi boroom kër yi jotewuñ si tey ji musiciens tey bu ñu xewlee amul kenn tey ji ku leen di jàppale tey ji làmb tey ji su jotee mbër yi dañuy wër dugg fu ne tey kon boog maire bi ni si nit ñi waroon a gisee seen bopp gisuñu si seen bopp tey li ma leen di lancé maire yi du contre état parce que si état nga bokk tey ñëw lu lépp mu mën a am mooy foog ñu naxtaan ak état dem jëli ji pour mën a defar defar Thiès mën a dimbali jeunes yi jeune Thiès man de tey man bis bu ma newoon ci mairie bis bu ma newoon tey jii si mairie bi li may ñi def mooy joxanteeg loxo état mu jàppale ma ma dimbali waa Thiès. waaw xam nga loolu mooy gis nga njiit tey day ànd si dëgg man. contre ma président Macky Sall vraiment jàmbaar la liggéey na liggéey bu rafet waaye dafa am ñoo xam te ni danoo danoo nekk si côté am sa war noo nekk si côté am tey jii boo tey jii njiitum réew da ngaa war a yemale ñëpp ñëpp def na ni def def seen seen doom luy dëgg nga nekk si lu dul dëgg nga génn si parce tey jii moom ak tey jii Ousmane Sonko li may ñaan réeroo amul ñàkk waxtaanam nan toog ñu waxtaan lépp loo xamante ni tey jii lu luy defar ñu waxtaan si ba jubóo parce que réew mi ñun ñëpp ñoo ko moom. am na te ni yàq jaru ko xeex toj ñu ñooy pet bii si ñuy toj ëllëg ñun ñoo koy soxla te maire yi ñuy toj suñuy gétt ji du moos ne kon boog di ñaan ñëpp. ànd si dal bañ a xeex bën a xuloo ñi si kaw yërëm ñi suuf ñi si suuf dégg ñi si kaw foofu daal laay tëjee di ñaan yàlla yàlla may nu jàmm di nuyu waa di nuyu tamit les amis de di nuyu samay xarit ma kenn di nuyu tamit sama sinapeur muy El Capo muy jàmbaar ji nga xamante ne tamit euh, photo yi leer tey moo koy def di nuyu ñoom baaba nga te tey jii moom mooy tey jii suñu jeunes yi vraiment tamit lu ñu xewal tamit ñu ñëw taxaw si bay seen waar di la nuyu tamit di ñaan tamit euh, site bi tamit yàlla dimbali ko taxawu ko ba mu mën a def ci kanam.